waaw tout à fait xam nga classement FIFA moom li ñuy ñun li ñuy tuddee match amical <laughs> match amical amatul même match bi ñuy fubal yi Lisbonne contre euh, Brésil match international la dañ koy noté résultat boo fa jël day dugg ci sa poñ yi nga war a am classement FIFA waaw c'est vrai que maintenant pour les qualifications nous sommes déjà bien mais bene am na challenge mooy maa tenir en échec wala maa gagné champion d'Afrique. parce que merci beaucoup loolu moo tax Aliou coach wax ne le match là ñoom dañ koy fubal à fond parce que dañu bëgg place bi ñu Maroc jëlal ñu récupérer ko. et pour récupérer ko il faut qu'on gagne tous nos ah,